info mbokk yi yéen ñi bàyyi xel seen site internet bi di 24 actu comme niñ ko baaxoo di ànd ak yéen rek saa su nekk ci seen invité de la rédaction suñu gën tey nag nekk tamit ci politique nekk bi nga xamante ne moo di PASTEF nekk tamit euh, li nga xamante ne moo di membre pôle communication nekk tamit commission action féminine kon suñu gan ñu bàyyi na ba nuyoo. soxna Astou ñoom lay delloo ziar bi bëri bëri di leen jaajëfal di kontaan invitation bi. ñu ngi sant ñëpp 24 actu. waaw zone asu ñu xool ne yaa ngi yëngu ci politique nekk ci li nga xamante ni moo di Pastef ñu bëgg xam lan mooy sa jaar-jaar ci wàllu politique. waaw sama jaar-jaar ci wàllu politique nag mën naa ne bariwul. Mhm. parce que suma politiquee grâce à Ousmane mhm. ndax li mu indi ñu xool ko mu doy mhm. lan la indi ba tax yow nga dugg ci politique bi. bokk na ci jële fi li nga xamante ni mu di safaan. indi fi dëgg. ak comme ni ñu koy faral di waxee rek muy changer système bi nga xamante ni moo fi nekk. te jàpp nañ ni il est temps système bi dafa war mm-hmm. donc képp koo xamante ni aussi Sénégalais ngeen surtout nga xale. Mm-hmm. da nga ciy war a gis sa tax nga war a jàpp ki nga xamante ni mu di Ousmane Sonko. kon yow avant ngay ñëw ci amul benn parti boo xamante ne fi nga njëkk a jaar avant ngay ñëw Ousmane Sonko. avant may ñëw Pastef def a yëngu yu ndaw ndawaan ci parti au pouvoir. Mm-hmm. mais nag Pastef dafa nekk parti boo xamante ni ñun ñu fa nekk. soo fa nekkul sax doo mën a comprendre ñoom dañuy dund. loolu da ngeen doon def ay yëngu yi ndaw dawaan ci li nga xamante ni moo di APR lan moo la fa jëlee. mooy li ma indi ci Ousmane Sonko rek gis naa fa loo xamante ni dëppwul ak dëgg. Mhm. te ñun dëgg lañ bëgg. te ci loolu la ñu dox. Mhm. moo tax ñu bàyyi ko fa dem fi nga xamante ni moo di Pastef. yow da jàppale li nga xamante ni moo di APR ñoom li ni moom la ñuy doxalee dëppwul ak dëgg. waaw loolu defe naa ne képp koo xamante ni nekk nga Sénégalais j'espère que nga wax ko war nga bañ ko wax yaa ci teg ah ci ban côté ci ci côté yëpp. mooy yow da nga nekk Ousmane Sonko dafa ñëw pour changer li nga xamante ni moo di système bi fii ban système boo fi nekk Ousmane Sonko war a mën a ñëw changer. système bi fi nekk mooy dafay ñëw wax ne Sénégalais yi dafa jot. li nga xamante ni ñëpp ñoo ko bokk. ku nekk am ci sa wàll. mooy xale bi mag mi ak keneen ak keneen. du nekk rek tey ji koo xamante ni mbir yi dañ koy dañ koy page comme su ma ko mënee waxee noonu daal. ngi ci bokk rek ñoom ñoo ñoo koy yëg. ñeneen ñi aussi. ñu ci gis seen bopp. ah mais dama bëgg nga citer mu ne ñii ak ñii ñoom ñooy def loolu. mais ñi koy def kay ñëpp xam nañ leen. ah mais damaa bi nga xamante ne ñoo lay bàyyi xel. non non askan bi koo xamante ni Sénégal la fii Sénégal yow loolu yaa ngi teg sa bët. boo gis boo dégloo di nga dégg. donc nag loolu pour changer ko. voilà mais Astou Gawane dañu gis na yow yaa ngi nekk ci li nga xamante ne moo di coalition Sonko ñu xool nañu dem ngeen ci ay élection te pour la première fois ngeen dem yow loolu ban jàngal nga ci jàngat bu ma ci am mooy ñun dañ ci fier parce que tey sax nu jàpp na ni ñun ñoo yore réew mi. lan moo tax ngeen jàpp. lan moo tax comme li nga bi nga la première fois ngay dem ci élection présidentielle. Mhm. te ku nekk xam na élection présidentielle moom ni mu mel. Mhm. dafa war a laaj campagne boo xamante ni dafay ànd ak budget. Mhm. ñun ñuy liggéey ci ay conditions yoo xamante ni conditions yu xaw a doy waar la. ay moyens dina ko ngeen ko ñàkkee xanaa ki nga xamante ne Ousmane Sonko jàppale wu leen. mais xam nga politique. comme changer système bi du question ne politique tey jii da ngay dikk fekk la nga toog ñaan la am 2000 yi wala 1000 francs yi loolu am solo mais changer système bi bokku na ci mooy. Mm-hmm. dañuy ñëw ni convaincre nit ki. Mm-hmm. wax ne ko nag Sénégal dañoo bëgg tey vaccin bi ma lay jox wala vague bi ma lay jox amalu mm-hmm. mais voté leen ki nga xamante ni bu ëllëgee. dina yor yoon façon yorin boo xamante ni. ki feebar dina mën a faju ki xiif dina am lu mu lekk xale bi toll ci jàng dina mën a dem jàngi ki war a liggéey aussi bu xëyee. sabablu ji dina am lu mu liggéey ba am lu mu yore njabootam. Mm-hmm. ñun politique boobu lañ doon doxee. mu nekkoon loo xamante ne aussi lu jafe parce que la plupart des populations loolu ñoom ñu ko comprendre. Mm-hmm. mais nag jàpp naa ne ak euh, ni Pastef di doxee nii jàpp nañ ne li ñu bëgg yàlla dinañu ko mën. yow da ngaa jàpp ne dafa am ñoo xamante ne ko jox moo tax nga am ak yow ci côté boobu ña nga ci jiital ñoom ñoo koy def. donc xam nga du gis moo tax nga ko. du ñu cité xam nga lan mm-hmm. mm-hmm. parce que ñun suñu leader. Mm-hmm. tànk yi ñu dox di ci jaar ñun foofu la ñuy jaar topp si ginnaaw. mosuñu dégg mu cité nit di ko wax na ko suuf wala mu di ko xas wala mu ko ŋañ ñun Pastef aussi ci loolu la ñuy yar ñun ci loolu la ñuy dox du tee xam nañ nag li fi nekk xam xam li ñu dox parce que ñoo ci terrain bi. Mm-hmm. mais nag loolu lañ fi bëgg a jëlee ñun. yow ngeen ki ngeen àndal mosoo leen gis mosoo tamit mu toog wax ne man nga xamante ni ñoo ma wër ñëpp amal ma ci kenn affaire président Macky Sall moom moom laa amal affaire xam nga loolu moom gis na ñëpp ñëpp di dégg. président Macky Sall parce que mooy président de la république moom la doon maanaam xëccoo pour mën a toog fa mu nekk. Mm-hmm. kon wax na dëgg moom na amal affaire loolu la rek c'est mais ñu seetlu na ñu bëgg a xam leen yéen lan mooy seen yëngu-yëngu ci diwaan bi. élection yi passé na. mais ñun ñi nga xamante ni ñooy Pastef jàpp nañu ne liggéey bi tey la dina commencé chaque jour ñun ñoo ngi ci suñu ay liggéey di xool nan la ñuy def ba gën a avancé parce que li ñu am ci élection présidentielle yi tooguñu rek pour am ko dañ koo liggéey. mais ci ban côté ngeen doxalee pour suñu liggéey gën a mën a avancé. continuer di sensibiliser nit ñi comme ni ñu ko daan defee. Mhm. di waxtaan ak ñoom. Mhm. di leen convaincre di leen xamal ni. Mhm. Sonko bi mooy li nga xamante ni moom mooy li gën ci askanu Sénégal bi yëpp surtout. loolu moom yéen yéen a ko wala askanu ñoo ne Sonko moo fi gën a jàpp bu fekkente ni yow loolu am na ñu koy confirmer est-ce que jàppale ko moom dina gagné ci élection yi. askanu Sénégal bi. Sonko xam nga yow woon nga ko léegi c'est c'est la première fois dem élection présidentielle. génn fi ak li mu fi génnee. comme ça veut dire que bi xam ne. Sonko mi mooy la solution comme ni ñu koy waxee. Hmm. voilà léegi nag tenté nañ bi yoon gis nañ natt na suñu bopp xam ba xam fu ñu toll. Hmm. te am nañu yaakaar ne la prochaine fois hmm. euh, dañuy dugg pale incha allah. Euh, mais ñu gis ne Touba bi nga xamante ne fi ngeen féetee ñu gis ne ki nga xamante ni boo di Idrissa Seck ci wàllu côté élection yi def leen fi gagné gagné yu métti métti est-ce que loolu ngeen liggéey bi ngeen fa bu leen fa waroon dëgg dëgg def ngeen ko. waaw Touba euh, loolu li nga wax dëgg la Idrissa Seck moom moo fi génnee. mais nag Touba dafa am dëkk dafa nekk dëkk boo xamante ni defe naa képp koo xamante ni dëkk nga fi xam nga lan mooy réalité bi dafa am nu muy doxee. nan lay doxee. maanaam dafa am nu muy doxee ci lu mel ne Idrissa Seck. am na ay yëngu-yëngu yu fi xewoon ak yeneen yu mel noonu. yan yëngu-yëngu dañoo bëgg tamit ngay expliquer affaire bi. am na loo xamante ni moom mhm. man du ma si sax wax. lan moo tax doo si wax. non non du si wax parce que c'est nekk na boo xamante ni moom nañ ko bàyyi noonu mais nag. li xewoon Touba ba tax tey jii ki a xamante ni mooy coalition Idy bi gane ko. Mhm. defe naa loolu moom ñëpp xam nañ ko. Mhm. franchement parler mhm. mais avant loolu de xew ñun ñi nga xamante ni ñooy Pastef jàppoon nañu ñun Touba téye nañ ko suñu loxo parce que liggéey nañ fi loolu. liggéey nañ ko fi ba képp koo waxal def naan Sonko Sonko. mais nag Touba dëkk la boo xamante nii euh, am na nu muy tamit euh, nii la mën a demee mais nag la prochaine fois tamit. dina dina dina gën a romb foofu daal incha allah. mais est-ce que jàppale ne yéen di ngeen kus néew maanaam vote ci wàllu xeet moo leen ko may bu dee ci côté bi nga xamante ni fi la Ousmane Sonko féetee muy côté Casamance bi mais côté yu bëri mën nañ ne dinañ faa gagné loolu loolu ngeen est-ce que jàppale ne loolu. Sénégal Sénégal loolu kenn mënu fee jëlee Macky Sall moom moo gagné Fatick Idriss Seck moo gagné Thiès. Mhm. Sénégal loolu kenn mënu ko fee jëlee voilà man mii su ma nekkoon candidat man na maa assuré Touba dama koy gagné parce que loolu Touba ah non non loolu loolu mën na bañ a nekk de. non non si maanaam gëm-gëm boobu la ñu am. Mm-hmm. loolu lépp rek bokk na ci système bi Ousmane Sonko di wax toujours. Mm-hmm. parce que li muy wax mooy président li su ko fal ci mm-hmm. li su ko fal ci diine. li ko fal ci fii laa bokk wala faa. da ngay xool kii programme bi mu la tegal ndax arrangé na li nga xamante ni mooy population bi ñëpp dinañ ci gis seen bopp. nga xool def jàngat ne kii mooy ki ma doy pour sama réew. mais nag Sénégal moom am na ci ay réalité yoo xamante ni. néew ma du fi jógee. mais du jamono yi ñu toll. mais est ce que yi nga yéen ñi nga xamante ne yéen a nekkal Ousmane Sonko fii ci Touba euh, moom la ñu yéen waroon a am dëgg-dëgg pour campagne bi est ce que am ngeen ko ndax ñun dañu ñu wax ne Ousmane Sonko moom du joxe xaalis yéen moom yéen fan ngeen doon jëlee xaalis pour campagne. Ousmane Sonko du joxe xaalis man loolu du ma ci sori. lan moo tax ci sori parce que damaa xam ne bu fekkee ay nit dañuy ñëw di liggéey boo yoree pour mën leen jàppale da nga jàppale am loo xamante ni il faut yow tamit nga dugg ci nga leeral askan bi mais mënoo lu ñu wax rek ne lii du ma ci sori. waaw xam nga moyen yi nga doon wax ni ñun campagne bi dañ doon liggéey liggéey bu parce que man ci laa bokkoon. liggéey bi metti na trop ta li metti sax lépp ñun mënuñu ko expliquer il faut nga dund ko ak ñun soo nga xam ñun lan lañ doon teg mais mm-hmm. Ousmane Sonko ñun daf ñu ko jaral. Mm-hmm. parce que li mu indi li mu indi ñun tey jii bu fekkoon tey élu nañ ko mu nekk président de la république ñun mm-hmm. danañ ci gis suñu bopp. yow da nga ko ci gis keneen ak keneen te yow Sénégal dañu gis ñun loolu rek moo ñu intéressé woon mm-hmm. du question xaalis bi dafa ñu koy jox wala déedéet Pastef dafa nekk parti boo xamante ni dañuy cotiser mm-hmm. di def lépp lu ñu man mm-hmm. pour di di def li def ñu financé xaaruñu keneen ñëw li ñuy jox ay vaccin yi ay folklore ay kenn xamul. loolu dafa mel ne dafa am ñoo xam ne yaa ngi teg baaraam. non damay expliqué. dafa li ñu dund si suñu parti. est-ce que yaa ngi comprendre mhm. jëruñu t-shirt di ko maye amuñu 2000 francs yi ñu may kenn suñu wala remay dañu ko carburant xam nga amuñu ay vaccin amuñu leneen xam nga lu ñu am mhm. suñu programme ñu toog ak nit ki waxtaan ak moom ba convaincre ko ba mu xam ne kii yëg lii yëg na si boppam mhm. mu dem sànni ñu carte ñu béy mais yéen kon yéen xaalis bi ngeen doon defee campagne yéen yéen a ko doon cotiser seen biir xaalis bi ñu doon defee campagne fii nga xamante ni moo di Touba patriote yi nga xamante ni ñoo fi nekk ñoom ñoo ko doon cotiser ak képp koo xamante ni bëgg nga Ousmane Sonko volontaire ñëw jël sa alal nga def ko ci ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni du jeex. Mhm. ñun ci loolu lañ doon yëngu boo dikkee nag fekk ñu da nga xam ne ñii ci dëgg rek la ñu dox parce que fii ñu toog dara euh, nga xam ne mooy président Macky Sall ginnaaw bi élection yi jàllee woote na dialogue national est-ce que yéen yéen a ngi préparé pour dem wuy ji. waaw euh, côté boobu moom euh, xëy na Ousmane moom dina ci wax la mu ci war a wax moom du ko sori. mais nag ah, du nga xamante ne yéen a ànd a ngi dañuy déglu ki nga xamante ni mooy suñu leader. Mhm. fépp fu mu ñu wax jaar fa ñun foofu la ñuy jaar. Mhm. toog tombee aussi muy bëgg-bëgg askan bi. Mhm. foofu la ñuy jaar. Euh, woote dialogue la. loolu ñu naan dëmm la jaare la daanaka c'est pas important ñu ñoo ngi déglu suñu leader daal. yow mi jàpp ne loolu bëgg def. foofu la ñu fekkee loolu nga si tontu est-ce que yow bokkoo si ñi nga xamante ne préparé wu pour dem. dem fan. non nga tontu ñu ne affaire yi dëmm ray ray la jaarale est-ce que nekkul ne yow yaa ngi bokk si ñi nga di jarab li ma la wax léegi man jiite ma Pastef muy Ousmane Sonko moo ko jiite ñun ñoo ngi ci ginnaaw mm-hmm. ñoo ngi koy ba xam moom loolu ban xalaat la ci am. Mm-hmm. fu mu ci taxawee ñun tamit waa Pastef mm-hmm. dañu xam ñun aussi ban taxawaay lañ ci am. mais tamit ñu gis ne jëriñ ñu dénk lépp di jëm ci wàllu yoon ci Sénégal muy Ismaïla Ismaïla Madior Fall yëkkati na ay kàddu wax ni dialogue boobu képp koo xamante ne yaa ngi ci kujje gi soo soo wujjiwul mënoo xam la nga xamante ne mu lañ fay wax loolu la nga ciy tontu. comme ni olof di wax souvent la ñoom borom ñu am lay faral voilà moom daf ñoo daf ñoo fere gi ñeenti moom comme ni ñu koy waxee. Mm. voilà ñun moom. fu ne fu ne gis nañ ko loolu garaawul de. non non mais tamit yow dama bëgg tamit comme par exemple yow. parti bi nga nekk donte yow gisoo ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko xanaa ñi nga àndal nga xamante ne yéen a ngi féete ci Touba dégg nga ñoom ñu wax na ñoom ñu ngi préparé pour dem parce que jombul ne am na ci koo xamante ne ku jege Ousmane Sonko di am ay information ci moom dinañ dem wala duñ dem. loolu bu amoon def naa képp ku bokk ci parti bi di nga ko yëg. Mm-hmm. ko te nit kenn ko jiitu ci euh, nga jiital nit ba pare bokk bokk koo jiitu ci ay décision yu muy jël yu muy def. Mm-hmm. loolu defe naa bokk ci biir jëf te ñun Pastef dañoo yar. ñun ñoo teg di déglu suñu leader. kon dañ leen yar loolu ngeen moom moom ngeen la moo daal. dañoo yar dañoo yar mais tamit ñu ba léegi ñu koy jàng ci journal bi moo ne moo ne journal bi nga xamante ne moom la ñuy wax enquête mu wax ne Ousmane Ousmane Mandione Fall bi ñu dénk lu jëriñ bi dénk lépp lu jëm ci wàllu yoon ak yoonam dafa te dafa wax ne Ousmane Sonko dafa teel ci moom pour mu nekk président parce que nekkul ne xam-xam bi nekku fi. am na ci loo xamante ne nekkul ci moom pour moom mu nekk la nga ciy dafa teel kañ lay jot comme ni Ousmane Sonko ko wax jot na kañ lay jot nit nan lay amee 40 ans et quelque nga naan dafa teel suñu man yu baax nii bu seen histoire boo ko dee lire 30 ans daanaka lu ñu war a def seen àdduna yëpp dañ koy def toog di xaar leneen mm-hmm. yow 40 et quelque nga ne dafa teel non non teelul dafay xale boo xamante ni dafa am jom ba pare déterminé am vision bu mu am ne yi man dama cay àgg. loolu gëm-gëm boobu nag soo ko amee yàlla lépp loo xamante ni bëgg nga ko rek mën na la cee jàppale. jàppale kàddoom yooyu ñu bëri ñu bëri dañ koo gëm ba tax li nga war a jàppale Ousmane ko. non non non non loolu loolu loolu non parce que loolu moom mën naa la première fois ko moom mu wax ko te wax comprendre la. ah naka am loo xam ne il faut nga il faut nga leeral. non euh, su ma nee comprendre nañ lu tax mu wax ko. Mhm. xam nga lépp rek ci politique la ak aussi ku jég politique gën a xam mais lii moom du question daal dafa teel moom loolu moom beneen wax la moom wax dëgg yàlla parce que Ousmane Sonko euh, xam-xam baa ngi fi te aji tamit mën nañ ne néew na néewul franchement parler yaa donte yàlla na ko yàlla deful mu gën a bari mais néew na néewul xam-xam baa ngi fi fit waa ngi fi jom jaa lan moo ci des dama ne toog di xaar ba ñaaw bant naa damay dem élection loolu moo ñu tardeel ah asudee man dafa mel ne waxtu bi la ci des bariwul sa kàddu yu mujj ak lan ngay dénk ñi nga xamante li leen sant yéen ñëpp di leen gërëm surtout yow ma jàkkaarloo sama turandoo bi mm-hmm. di la remercier bu baax a baax mm-hmm. di sant aussi waa Pastef yépp nag mm-hmm. di ko commencé ci suñu président Sonko rawatina fii Touba aussi di sant suñu coordinateur bu baax boobu di sëñ Cheikh Thioro Mbacké ñoo ngi koy ziar lu bëree bëri ak ñëpp ñi nga xamante ni aussi ñoo nekk ci bureau bi ñoom leen ziare ak waa commission féminine ak action sociale bi aussi ñoom leen ziare ñoom ñëpp di kontaan na képp koo xamante ni yaa ngi ñuy koy sant bu baax di ko gërëm mu nekkoon uh, suñu invité tey soxna Astou Gawane Gueye di leen tamit ci projet nekk ci Pastef nekk tamit ci commission action féminine ñu ko sant baax di ko gërëm di sant képp ki nga xamante ni yaa ngi suñu seen internet bi di 24 actu rawatina seen invité de la rédaction. ñu ngi leen jotaay mbokk yi jërë ngeen jëf.